mu nekkoon le premier xalif général di Tidiane de 1922 à 1957 Famaba je te vois éblouissante mmh. installé au quartier de Fass à Dakar sur ordre de son père Ilifi euh, 9 le 9 novembre, novembre 1958 un discours mémorable devant des milliers de fidèles sur les droits et obligations du musulman les fondements de la tariqa tidiane et le rôle des daïra c'est important c'est ça justement dit da li nga xamante ni moom moo di sa njaboot lépp li ko war ci yoon gi nga xamante ni moom lay woote woo ba faf nag sax dana ko nduru ndurulu ba faf doon ko nag n'est-ce pas Fama Ba dëgg la di ñaan yàlla tas ñu ci barkeem mhm. euh, tarixa cheikh machallah bu <laughs> Seydi Alaji Malick radiyallahu anhu mhm. jiite sëñ Babacar si daal di ci topp nga xam ne yàqu ci dara moom it njabootam allah asma duma ci wax lu bëri ñaan yàlla taas ñu seen barke <laughs> euh, xam nga te su ma waxee ci lii damay taalibe bi day génn ah, na <laughs> génn loolu laa bëgg di euh, Fass nag ca Seydi Jamil nit ñi dem ziar comme ni ñuy demee ca Tiwaawan di ziar. Euh. ndax foofu tamit am na ab barke ba fa nekk. Euh. boo ñëwee booy duggee Fass sax dañ lay ne fan kër Seydi Jami donc na fa nit ñi dem euh, ziar am na solo lool borom daara di moom it macha allah. oh là là je l'ai yëngal. waaw bu baax je l'ai <laughs> ayca <laughs> yal na yàlla yokk leeral tas ñu ci barkeem ci seen i barkeem mag yu mm-hmm. baax yooyu yal na Sénégal am jàmm te jàmm sax ba dàq fi ah violence yi ñuy dégg yépp yal na yàlla teg ko ci suuf may ñu kàttan gi ñu koy tegee ci suuf ba iblis du mën ci suñu jëmm ji dara euh, sëñ almaktum waaw sëñ Moustapha Sy nee na euh, nañu sang réew mi <laughs> buñ ko sangul danañ ko deret dana ko sang donc loolu na nekk loo xamante ne lu mat a bàyyi xel la ñu bàyyi ci xel ah. te waa kii sax ñoo ko doon wax les grandes gueules démb di andiwaat addis yu mag ñi bàyyi mu nekk loo mm-hmm. xamante ne mag liggéey liggéeyal nañu lépp xam nga dama koy wax fii nit ñi di foog ni damay kaas ndax dama bari tooñ mais gis ngeen euh, réew bu ñu ci nekkee euh, waliw ñaata waliw yàlla la waa yàlla wàccee Sénégal yaakaar naa ni bëri na lool ba mënuñu ko wëññati mm-hmm. waaye bu fekkee ni chance la nañ ko def mérite ñu ndaw mm-hmm. buñ ko defut mérite justement moo tax ma ne euh, wëññi ko sax dafay daal di dugg ci dooj waa nuyante bi maam si di dee ma ko may ah dañuy mottalante il est important de def ko mérite parce que boo ko deful mérite rek seen martaba moo lay duma te martaba bi bokkut ak yërmande nit ki ci jëmmam kon nag nañ bàyyi xel bu baax a baax yu sew yu ñuy def te yàlla di ko réyal ayca soxna Fall bu ñu jugee ca euh, foofulee dañuy noppee dugg ci 1998 ah euh, xale yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi juddu ci at boobu verdict mu nekkoon le verdict du procès de l'électrique mu nekkoon Sutelec le secrétaire général Mademba Sock et Samba Mayoro Dièye sont condamnés à six mois de prison ferme alors que vingt-quatre militants sont relaxés alors ba tey euh, Sutelec nekk aujourd'hui Sénélec je crois mu euh, mu ñu continuer di wéyandi di fa gis ay grève ñàkk juboo mooy indi grève lu indi ñàkk juboo boobu depuis de 98 hein dans notre histoire à aujourd'hui nous xam nga 98 taxu koo yàgg torop torop mais li ma retenir ci 98 daal mooy ma Mademba Soog turam boobu moom duggoon na ci bopp xale yi te liñ naan xale du fàtte loo koy def rek wala nga koy lebal lebal ko lu baax ndaxte da koy jàpp mhm. ci grève boobee ci la turam jóge woon mais grève yi Asma Khadija euh, xëy na secteur boobu la ñu lim tey ci wàllu éphémérique waaye ba tey am na ci muy gën a indi ay jafe-jafe récemment rek ñoom gis naa leen fii ñu tëdd ci rond point bi saint bañ jëlee leen fa ndax foofu lay entraîner ba nu jëlee leen fa ñoom ñu doon grève ñun ay prestataire la ñu waruñu dugg wala ñu nàngam seen solution fu mujjee amul solution très bien loolu day firnde leen di ba tey rek ci biir entreprise yi ak bu mu ci mun ci doon jafe-jafe ya ma nga fa ba tey en tout cas mi ngi noonu les porteurs de voix sont là euh, Ndongo Ji euh, faw incha allah ñu ñëw ci moom laata loolu dañuy dugg ci tàggat yaram on va faire honneur aux hommes donc donc da bëgg nga sport. waaw man nag sama sama sport préféré basket la. ah oui nga presque tous les chaque concert sport la ñuy def. Ah, concerts de Daradji c'est deux heures de show là on a fait l'Espagne on a fait deux dates. et concerts de deux heures de. Mm -hmm. de show et c'est du sport. d'être sur scène et de nous faire danser. <laughs> Aïcha mi ngi noonu euh, euh, sa laata ñuy